لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك الحمد لله رب العالمين الحمد لله وحده الحمد لله حق عمده مبك جلتي مبك تلسبكتاتيري نيجي ديل سوات في تشبير دزس تي في دي لين نيو دي لين زياره دي لين نيو نيو بو ري muy nuyu bi nga xamante ni moom la ñu lislaam sant ñu di ko nuyoonte suñu biir muy asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu waaye di leen seedal ni itamit tey ji nii nag dëgg-dëgg Sénégal amati nañu gan kan la muy kii nga xamante ni moom la ñuy wax alxaaji Idrissa Gueye alxaaji Idrissa Gueye mi nga xamante ni ambassadeuru alquran la moom di ambassadeuru yonent bi sallallahu alayhi wa waaye nekk conférencier nekk gàmmukat goo xamante ni mën nañu wax moom moo ubbi plan international ndax tey fa tabarakallahu muy France muy Amérique muy Suède muy Angleterre tey bu ñu demee fu ñu mën a dem ci réew yooyu di fa continuer liggéey bi di def ci daawa bi tabarakallahu dañu ne kan la njabootu Alxaaji Idrissa Gueye ñu ne ah ñu recevoir ñu teral ñu

ah xaw kan de mbokk Gambia kontaan nañu tey mbokk sénégalais yëpp bég nañu contane nañu waye mbollem ko xamanteni julit nga muy sénégambien bu nek ci diaspora bi tay contane nga ci téwayu alhaji Idrissa Gay tafsir Abdourahman alhaji Idrissa mo fi téw tay alhamdoulillah rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafil almursalin sayyidina muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وخلفائه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام خليل السلام عليكم ورحمة الله حاج دريس عليكم السلام ورحمة الله نيجي لين دي نيو دي نيو مبوليم تلسبكتاتير ديزيس يغا خمني وقت وي نيجي سيتان سين اميشيون بي فتبارك الله دي اي اج مكة دي نيانال يالله سبحانه وتعالى كرغي دي ديزيس الكتش بوب ديال حاج نجاي اج مدام نجاي مريم فتبارك الله اج مبوليم نيغا خمين تاني نيو تكنيسيين waye ak mboolem yi nga xam dañuy bëggé kër gi yalla yàlla sàmm leen Chérif xamna tay tey fa tabarakallahu mën wax la ka'b ibn Zuhayr waxon ba mu toñé toñam yu rëy ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di laaj bakkanam bu Bujayr mi nga xamante moy fréram bu am ibn ibnu Zuhayr nga xamni ño bokk bay yonné ko lettre xamal ko ni Muhammad a laaj sa bop mu ne ko lan laa def mu ne ko wax yu ñaaw yi nga wax ci moom da nga ko caricaturé mu ne ko te fi mu ne mënatuu rëcc ci àdduna ndax ñi jeex ñi ñi dof ci rasulillahi sallallahu alayhi wasallam bari na mhm. mu déparé këram moom kaabu jëm si ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam masqué wu ñëw ba toog fekk ñëw ba fekk yonente bi fi mu toog saxaaba yëpp wër ko kenn xamul ni kii kaab la ndax mu ngi def masque ci kanamam ñëw toog ni ko waaw kaab ibnu zuhayru lu mu la def yonent salaay salaam ni ko ah xanaa wax yu ñaaw yu bon yoo xam ne dara mu ci nangam nangam. Mhm. waaw loo diggee ci moom mu ne ko ku ma indil boppam ma jox la nangam ak nangam ak nangam. Mhm. Kaab ibnu Zuhayru daal di dindi masque bi ci kanam gi. Mhm. yonent bi jàkkaarloog moom. saxaaba yi ko xàmmee bot ci seen jaasi yonent bi ne xaar leen te déglu ko ba xam mu tàmbali naan ko baanat suaadu fa qalbil yawma matbuulu متيم إسرها لم يفد مكحول دم بير نلا أقوم مقاما لو يقوم به أرى وأسمع ما لو يسمع الفيل تقكن إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول واي واي ما تيترك مويداني بلاس بما نتاي أمنا تيتا أنجي غو خمني ñay li muy bari doole bu yoroon fitu gaynde bu fi taxawee dina tiit fa tabaarakallaahu kon man tey foofu laa toll ndax sama sëriñ moom la dalal xam nga nag macha allah booy dalal ba dalal sa sëriñ ah. da ngay jaaxle doo xam looy wax ndax maa sama xel a ngi dem ca ba ñuy ne ca daara ja léeg-léeg fa bi ma jógee daara sëriñ jiy suñu wéyjur jox ñu ko léeg nga ñëw tari la ngay tari mokkul mu ne ay eh, mbokk mbokk leen tam ñu war la mbokk maa ngi xalaat ba tey duñ ma mbokk moo tax ma ni tiitaange ka Ibnu Zuhayru ba moo ma ganesi waaye yaakaar naan tey du ma mbokk macha allah ndaxte li ñuy tari fa dina ñu fexe ba mhm. bu ñu ko taree ci moom macha allah mu mokk ndax ni mu ñu ko joxe bu ñu ko joxee noonu rek ku ko déglu di nga ni est-ce que te jox bu sell la ñu ko jox di suñu sëriñ uh-huh. waaye di suñu mag fa tabaarakallaahu waaye tamit di suñu xarit kon Hadj Idriss macha allah ñun ñëpp nag gannaaw bu ñu suñu jur tegee ci yoon mom la jël yóbbu alxaaji mustafa jël ko yob daara mom mu joggé daara ñun ñëpp mo jàpp ci suñu loxo ñi mu yobul len daara bi mu joggé daara kenn ku nekk mo agalé sa jang ko ci xamanteni ne demoo woon daara aussi ci mom nga jànge kon alxaaji Idris mom mu fa tabaarakallaa buñ ko dalalé fi tay ci aj màkka alhamdullilah rabbil alamin ba pare nak mu xam ko ndax dafa yor agence de voyage bu tuddu mubarak voyage dafa yóbbu ay nit ñu bare bare bare waye man day wallahi alazim na ma deux baal sax gisaguma ku andak ak alxaaji Idrissa dem Màkka ñëw te ci déwén sa jëlo ay nit indi jox ko kon sénégalais ñu ngi contane ci mom la xam gi mu ko xam waye contrat bi muy signé ak ñom bu ñukoy jox seen paas it mu ngi koy matal alhaaji idriss bismillah tafaddal mubarak voyage ci kaw ci kanam rek inshallah allah rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شريف ما من ما ngi lay delloo nuyoo Haydara di di la jox sa wàccuwaay ndax ku bëgg si cere jaboot ni doom ji yàngu juzitum ku fiitum ahla beyti rasulina baax nga lool woyof nga lool waaye seyduna muhammad ay sa maam waaye nag nii rek nga mën a mel ñu ngi lay nuyu di la ziyaar di nuyu itam sa bopp muy tafsir Abdourahman ndax kuy nuyoo ba daj ci yow yegg na ci tafsir Abdourahman waaye kuy nuyoo ba daj ci tafsir Abdourahman àgg na ci yow waxuma ñëpp a bég ci seen ànd waaye ñi ñi bëgg lu baax ñëpp bég nañ ci seen ànd ñu nuyu ko ziyaar ko xam naa ni mboq yo woon démb tey tey dañ koy décorer ndax liggéey bu rafet bi ngeen di liggéeyal diine adduna yëpp di si jëriñoo woo gii ngeen ñu fi woo mbaax la ak yaatal ak xam ni wanewu leen seen bopp da ngeen a taal puus ku taal télé boo puusee ñu gis image waaye boo taxawee yow rek la ñu gis taal puus a tax ngeen di woo ay boroomi xam-xam ngir ñëw leen ñu ànd ñu dolli doole liggéeyal lislaam di wane li nga xam ni saa yu leen nit ñi gisee te dégguñu ngeen wax sax seen xol sedd na bu ñu taalee télé daj ci tafsir Abdourahman daf ci Chérif Mamine kenn du zappe ak ku mu mën a doon nag bu taalee ba daj si te waxu leen mu seen leen ci imaam te waxagu leen dina taxaw ne xam naa ni te Chérif dina wax xam naa ni tafsir dina wax lan moo waral loolu mooy sa parce que li ngeen di wax day jëriñ jaam yi kon ñu ngi leen di jox seen wàccuwaay di leen jotal nuyoo xadara ba yëpp xalifa ba Cheikh Seydi Aboubacar ak ay rakam Cheikh Alhaji Malick Sy Maodo Seydi Cheikh Ahmed Tidiane ak seen baay alxalifa alxaaji Muniru Jëgan waaye nuyu waa 2STV yëpp ñaanal alxaaji Ndiaye yàlla ko yàlla gën a jàppale ci ci liggéey bu rëy bi mu ànd ak yéen ci liggéey lislaam li ngeen li ñuy waxtaane muy wàllu aj makk xam nga chérif lislaam dañu ko taxawal ci juróomi pied بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقام الصلاة إيتاء الزكاة صوم رمضان ويحج البيت من استطاع إليه سبيلا ولله على الناس حج البيت كن أجي مكة جوجو جرو ميلو بونكولا yàlla dogal li خيو xew ba mënuñoo dem ñu bëri ñu bari ñoo gi ci réew mi fii mu ne dañu feebar li leen tax a feebar mooy lañu daan jëli te jëli wuñu ko aj màkka sallallahu alayhi wa sallam nee na hajjul lay laysa jasa jaza janna yàlla nee na natt naa natt naa natt naa lu may fay alaaji beeg ajaratu bi mu mel na xaw ma lu ma leen di jox ma ni ñii daal awma benn pay لودو ديال تيابي اجانا جوخ لين من حج فلم يرفف ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه كو اج ما كتب عبد الرحمن تفوي ولو سا اج يونتي بي نينا يالا نينا نخ وما ينطق عن الهوى دو وخانتو دو وخه بانيخو بكانم موتا يالا نينيو لول رسول الله وخ رك جاب وما اتاكم رسول fa xuduuhu wa ma nahaakum anhu fantahu yonent bi wax ni soo ajee ta fawoo foluwoo di nga dellu mel na liir buy soog a judd ci set wicc ci bàkkaar jullit du doyal tuyaaba commerçant du doyal bénéfice loolu ñu doon jëli nag ngant am na ba réew ma koy organiser ndax dinaay wax ni Sénégal organiser wul aj day participer ci aj saoudi ñooy organiser aj ñun dañuy participer ji de waaye ñuy organiser nag ni gis nañu lu tax mënuñoo organiser kon ñun du ñu mën a dem ndax xajul bayti a tafsir lu mani sa man istataa ilayhi sabilan aj màkk da ngay wér yoon wi leer am sécurité nga mën a dem waaye bu yi dajawul doo dem soo wéree te sécurité amul doo dem ñoom ñu ni mënuñu organiser ndax lii ak lii ak lii nit ñi toog feebar ndax la doon jëli ndax waxuma chiffre d'affaires bi ndax ndax aj màkka yàlla wax wa azzin fi nnaas bil hajji yatuuka rijalan wa ala kulli daamirin yatiina min kulli fajjin amiq li yashhadu manafia lahum am na njëriñ li ñuy jooy feebar bi dal tey réew mi dal adduna bi yëpp mooy tiyaaba jënu daan jëli te jëli wuñu ko kaaba ga ñu daan xool te xooli wuñu ko sa maam Seydina Muhammad ma ñu daan toog sa raw doom te tooguñu fa Aboubacar Sadiq ma ñu daan romb te rombuñu ko Omar il xa Omar ibnul Xataab te ñu ko yooyu nga xam ni moom la ñu manqué dama am suma benn jigéen daf ma woo ni ma man bu trois heures du matin jotee rek dootuma mën a nelaw ma ne ko lan moo tax mu ni ma fan yi période bii daf ma daan fekk ma nekk Medinatu war di dégg noddu fajaru Médine ak ak mbeddu Médine yooyu ma doon jaar di dem te dew ma moo ma jàpp man ka looloo soob yàlla ma loolu ma doon yëg fajar trois heures ma jëkk rek jóg xool mbedd mi fees dell nit ñëpp di dox mal benn bërëb mooy dem ci rawdu Seyduna Muhammad dem ci masjidu rasul toog fa julli ji fa teyaa ba jooju ñu leen di fay ñu ne mu ni ma loolu mooy sunu feebar bi te mooy feebaru adduna bi nga xool nag màkka bu ñu demaan ku ziyaar ni ngeen ci jaare waxtaan ci leeral ci nit ñi ci bërëb yu tell yooyu ba ñu jógee ci ku ziyaar waxtu wi nga xam ne tey ji ci dimanche doom doon doon juróom ñetteelu fan ci weeru aj waxtu wii nit ñaa ngi rungu yow mu tarbiya waxtu wi fi mu ne ñu toog ñëpp waxtu wii tey Chérif Maami Tafsir Abdourahman ak ñi mel ne yeen di yóbbu ujaaji waxtu wi amatu leen jàmm yéen a ngi dajale nit ñi ngir jële leen ni rasulilaay defoon te yow mu tarwiya ba ba mu jullee fajar ba pare dafa jóg rungu ànd nit ñi dem mu naa muy bésu tey ji ña nga mu naa fa la ñu jëm bàyyi lal yi bàyyi néeg yu neex yi ndax bàyyi nga médul yu neex bàyyi nga màkka léegi yaa ngi jëm mun a lan ngay wuti war a dem too foofu ngir waajali li nga xam ne mooy arafa yooyu nga xam ni nag daan nañ ko jëli ak bërëb yu sell yoy ak yamu daan def ci sunu xol nga xamni tay mënu la am waye ngeen fexe ba dello ci wat nit ñi fatali wat leen ñu dunda tuuti makkatal mukarram xam nga bi nu génnee zul xulayfa nga xamni daf nañ ko lu ziar ba xëy ba tak ndax bés naka tay ji kenn du duguti xam nga waxtu wi kenn du duguti Medine lu gannaaw acc fi mu ne la 5 zul hijja ñu commencé le six ñu commencé génn waaye tey ji nga xam ni le huit la kenn koo xam ne am nga visa boo xam ne aj la duñu la autoriser nga dugg Médine ndax aj gi door na fi mu ne gannaaw aj bi képp la ñu mën a delluwaat Médine nga xam ne nag fi mu ne nag ñoo ngi génn nag nga dem Zul Xulayfa muy biiru Ali nga yéen a aj gi nga xam ne moo am ifraat tamato ak xiraan ndax ñetti aj yi rek am nga def ifraat tafsir Abdourahman maa nga def tamattoo maa nga def xiraan waaye bu mu ci doon ak daraja joo mën a am simmi nga say mbubb laxasaayoo ay morso réew mi di Sénégal ku fi laxasaayoon morso mais ñu ni ndax wér na réew mii tey ku génnoon jël ay morso rek laxasaayoo ko woddu di dox ci mbedd mi ak daraja joo mën a am dinañ la xoolaat waaye fii mu ne cër boo mën a yor di nga summeeku sangu jël morso laxasaayu yéene wane ni nag yàlla maa ngi lay wuy si maa ngi lay wuy si daraja jeeg xam-xam jeeg am am jeeg lépp teg naa ko gannaaw bi nga sangoo ba laxasaayu boo daanu woon ba faatu ñu yor la ci noonu la lay denc kenn du la sangi waa ndax sangu nga ba noppi nga dugg nag biiru aali boobu zul xulayfa war a wëlbatiku nag yéeg ci sa kaar naan labbayk allahuma labbayk tafsir labbayka laa sharika laka labbayk inna alhamda wa ni'mata laka wal mulk laa sharika laka quatre cent cinquante kilomètres nga naan labbayk allahuma labbayk labbayk laa sharika laka labbayk inna alhamda wa ni'mata laka wal mulk laa sharika laka yàlla yow laay wuy si de yaa ma woo man mi bàyyi koo Sénégal ak lu ma amoon yëpp yow mii laay wuy si yaa woote sa woote bu rëy woote tey ñàkk na ndax sa woote bi li olof naan kuy jaay ker ban ba di jot nga war a laal kuy jaay ker ba di jot nga war a laal ku doon woote tey ñàkk nga yàlla yow dong la ni wisi duñ la bokkaale dara sunu xol yi yow képp kott dong rek kese yaa ci ne kenn xaju ci yow dong la ñuy sant yow dong yaay borom nguur gi ñoo ngi nii di ñëw de. ngay téye di wax loolu yàlla di ko wax loolu ba dugg biir mag ni jameet dem defi tawaaful xuduum ujaaj bi lu mu sonn sonn shérif koo ma sa yóbbu ak lu mu sonn sonn bu wàccee makkatal mu karram balaa muy féex da nga koo yóbbu mu def tawaaful xuduum wala kaaba gi ne sama bàyyi laaji xalifa yàlla yàlla dolli leeram yéen seen yéen ma ne daf ma ne woon doom kaaba gi téeméeri yi ak ñaar fukk ciy wàcc mu ma juroom benn fukki yiw ñi ñuy tawaafa ko moom muy 60 waw mu ma ñeen fukki yi ñay naafila ko mom 40 mu ma ñaar fukk ba ñu tok di xoola ko moom <laughs> ma da ngay dong ñu fay la ba gi dong mo am tafsir xol ñu fay la fulul wa man man ko waa ki xol tay tey naa fi lay tey Yala yala mu ma day yobbu khudum. ak ñaar fukk ya yalla ya nga dugg ci def khudum war ka ba gi juroom ñaar yoon mm-hmm. ak ñaan goo ko nga gis ko mel ne tafsir Abdourahman ñoom Cherif nekk ànd ak nit ñi ñu naan rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar ربنا وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين شريف مد نيت كوني ne nga gis ko fa ñii xees ñii ñuul ñii gàtt ñii njool ku ne te ñëpp bokk fi liy jëm ñoo bokk li ñuy wax ñoo bokk fi ñuy jëm ñoo bokk li ñuy wax. nga xam ne yàlla rek ay yàlla. ñu nekk di wër ba wër ko juróom-ñaari yoon dem julli maqaama Ibrahima taxaw fa julli ñaari rakk nga julli ba pare dem Safa ak Marwa nga xool diggante boobu na mu meloon ak ak ak ne ko sunu borom bi defale nga nekk fa di jaabante inna Safa wal Marwata min sha'airillah fa man hajja al bayta أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خير فإن الله شاكر عليم sërif lu rëy lu xool yëpp bëgg tey fi mu ne li tax réew mi amel leen sant ak di leen ñaanal mooy nit ñi ñu ngi dundaan màkkatal mukarram ndax seen taxawaay bi ngay dem boo àndeeg jigéen ñu ñëw ba ci làmp bu verte bi ñu ni góor ñi ñukki ñukki leen yàlla jigéen xam loo jigéen ñu duñu daw dañ leen dawal démb ñoom bokkatuñu yaa yonti yàlla Ismaïl ah. dawal na leen démb ma doon ñun góor ñi bu ñu ñëwee ba foofu fu nu jaar ñukki ñukki nga gis gars yi di ñukki ñukki naan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa allah wallahu akbar subhanallah والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر دي نيوكي نيوكي نك غا جي نيك سن سن ويري ديك واي فولو جار جيم نخ نخ نخ ييو غوغو غا خامني موم لا ني ووت غا دم غا جوغي صفا دم مروه ام بن nga jóge marwa dem safa am ñaar nga jóge safa dem marwa am ñett nga jóge marwa dem safa am ñeent nga jóge safa dem marwa am juróom nga jóge marwa dem safa am juróom benn nga jóge marwa dem safa am juróom ñaar safa ngay doore marwa ngay jeexale inna safa wal marwata nga def ko juróom ñaari yoon te dafa bokk ci li nga xam ni xam nga aj màkka dafa am ñeenti déwénati al saayu bayna safa wal marwa wuquful arafa tawaaful ifada tafsir abdourahman lii mooy déwénati ci aj ñeenti yi bu manqué sa aj yàqu na dara du ko jàng am na looy manqué di ko réparé waaye nit mënu la aj te armalul non man vraiment ay morso woddu mënu ma il faut ma sol benn kii déedéet doo aj ak lu mën a doon armal ñii naan mënu ma ñàkk sol kala. foo jaar dindi ba seet wicc wicc yàlla ngoog yàlla rek la ku dul yàlla ñeme woo wax lii nit ñi al ihram saayu bayna safa wal marwa nit du aj dawul safa marwa am na ku toog di seetaan mi ngi naan waaw kii mënu dox waa na lay teg ci puus puus xam nga bu njëkk lu na def dan laa daan teg ci lu mel na gis nga yi ñuy téye yëpp jaat yooyu jaat dan la ji daan teg ay ponkal ñoo ko daan gàddu ay naar ñoo la ciy tëral di la dawal léegi la puus puus si am ñu teg la ci soo mënul diw defaaleel ma amu ca yaay dem ñu teg la ci puus puus yóbbu la man damaa feebar Chérif dama demal ma déedéet saa yu béy na safa wal marwa mënu ñàkk bu ñu demee ba wuquuful arafa moo tax bu ñu demee ba ba juróom-ñeenteelu fan bi nit ñi nga xam ne ñoo yóbbu ujaaj yi alaaji ak ajaratu yi délégué général ñi jiite mbooloo yi kenn du am jàmm feek sa benn ujaaj des na bu demul arafa aj arafa la alxajju arafa loo mën a def ba bisu arafa boo feebaroon ñu dugal la ci ambulance yóbbu la fa waaye boo ko teewewul ba jant bi so déwénati dara du ko réparé nga dem arafa laa ilaha illa allah waxdahu la sharika lahu lmulk walahu lhamd yuxyi wa yumiitu wa huwa ala kulli shay'in qadir tafsir abdourahman yendoo ko rek sëriñ Maamin yendoo ko rek taxaw ci tant yi rek di delloo si nit ñi message bi yonent yi wax sala yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax li araam ci seen i diggante dénkaane yëpp xam naa ne kooku yowmul arafa fu nu jaar tafsir Abdou Abdourahman leeral nga xam ne message boobu nga xam ne moom la Seydina Muhammad taxawoon jotal ko koroog yowmul arafa kon suba ñëpp ah mais mais suba nag suba ku ku ku taadali ji suma la mbaaw doonte mbaaw nga dëkk de suba yowmul arafa message bi Seydina Muhammad taxaw joxe ko te nit ñi di ko dégg te ñenn ñi ba tey déggaguñu wax ji hmm. te dafa mel ne tey jii la doon wax ak ñun. al na ko yàlla may wér ba mu firi ko ba leeralal ko jaam yi nga xam ni nit ñi bu ñu ko déggee rek lu bëri day defarwaat fitna gi nu am yëpp bu ñu dégloo message suba bi xam ni Seydina Muhammad waxoon na lépp démb waxoon na lépp démb moo tax laqad sadaqa allahu rasulahu ruya bilhaq la tadxulunna almasjid alharam إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق كان من تدرى yàlla dëggaloon na ko ni ko bés a ngi ci bis di nga dugg te kenn du la téye ah bañ a dugg tafsir di nga dugg te kenn du la téye moo tax bi Seydi la wali di dugg ah boobu sa maam dugg na Cherif sa maam dugg na dara téyewu ko sama sëriñ majma al bahrayni alamal huda faxral achira Cheikh Seydi Mouhamadul Mansour nee na dafa am at ma kaa bëgg a siburoo yàlla yàlla dolli leeram mu ne ma doom at ma kaa bëgg siburo xam nga ko ma ne ko déedéet mu ne ma siburu na atum yàlla bi Seydina ma ñëwee ba war a dem ñu bloqué ko ni ko doo dugg mu ne ma kaa bi gi rëg-rëgi na de ndax yonent bi war a ñëw tëjëwul mu ne ma atum yàlla moo tax ba ba fatxu makka abee ba nebbi dee dugg si te yàlla ñu ko di nga dugg dara du la téye mu ne ma doom ba mu duggee la wér kon dafa mel na fa tabaarakallaahu dafa mel na dafa mel na fa tabaarakallaahu daal yàlla na yàlla defal jàmm ndax ndax ndax ndax maa ma maa nga woon maa nga woon ca diggante ñeent ya nga xam ne mooy ihram sax yu bayna safa wal marwa wuquful arafa ak tawaaful ifaada nga xam ne nag bu ñu demee arafaat génn fa dem julli fa tàkkusaan tisbaar ak tàkkusaan boole ko dem Muzdalifa for fa ay xeer Chérif dëkk bi ñeme nga fee toog di sëgg di fori xeer fena ay xeer di dox ci xeer di teddi ci xeer di fori xeer di sanni xeer fofu rek la am dox ci xeer teddi ci xeer fori xeer sanni xeer yalla rek ko tax nga nga for fa ay xeer juróom-ñaari juróom-ñaari juróom-ñaari nga dajale say xeer ngir dem la sanni jamratul aqba nga xamni bo yegge dem sanni ko soga delu maka def tawaful ifada pour sa aj meuna jeex pour nga meuna am aj waaye dafa mel waxtu bi mi ngi taggu yalla ñu yalla defal jamm defal len ko yàlla leen yàlla gën a dëgëral su ngeen ko yëgee ak su ngeen ko yëgul nit ñaa ngi leen di ñaanal su ngeen ko yëgee su ngeen ko yëgul ñi bëgg baax bëgg nañ leen wallahu nag shahidun ala ma naqul yàlla mooy seede ci wax yi gërëm man yi nu àndal ñu réaliser émission bi équipe vidéo technique son décor lumière ñoom ñëpp ñu ànd gërëm leen ñaanal nag madame Ndiaye Marème yàlla ko yàlla dolli jàppale ak borom këram alaaji ñu ngi liggéey l'islam ñaanal sponsor yi leen jàppale nag di ñaan sponsor yi nañu jàppale ñu mel ne yéen. Ablaye Dia Sénico. Ablaye Dia Sénico yal na ko yàlla li jàppale. amiin yaa rabbal ndax itam yàlla ku mu namu la fay du la liggéey loolu. Chérif seen émission yi lu seetlu du ñëw li doon doo ngay ñëw léeg-léeg ngeen yéene ko nit lool to du dugg si waa ñu yàlla bëgg a dimbali fu du jaar dugg si. kon Ablaye Dia seni ko yàlla ko yàlla gën a dooleel ndax kun aaliman aw mutaalliman aw muhibban aw musamian ma nga ca biir loolu le kon bu sponsorisé émission bu toll nii def lu mel nii jàppale leen ci liggéey bi yàlla yàlla dooleel ko tam mi ngi dooleel jàppale alquran lépp l'islam Ablaye Dia ma nga ca kanam yàlla ko yàlla dooleel te jàppale ko. Serigne di la tam nga ñaanal ñu aquarelle. muy Bira Cissé. waaw mi tamit ku taxaw la. non Bira ko yàlla barkeel. amiin yaa rabbal te ndox mi sax dafa am solo. dëgg la xaw ma seetlu nga comme déet. man de bi ma ciy naan am na lu ma yëg xaw ma yëg nga comme ah, déet. ah man de yëg naa ci lu bëri bëri ah am na daal lu ci ne. tafsir te ngaa ubbi daal. <laughs> non jàppale ah. man li wér mooy daal. man sama ndoxu bopp laa ko def. parce que am na lu ma ci yëg bi ma koy naan léegi. waaw waaw wallaay ndeysaan. biraa yàlla na ko yàlla dooli jàppale. te itam képp kuy dimbali l'islam. waaw fi mel ni dañ la war a dimbali. Mhm. yàlla yàlla dooleel ko. amiin nga ñaanal ma orange tamit. mais moom dafa ñaanal boppam. dëgg la dëgg la orange money orange téléphone. orange téléphone. Mhm. nun ko caaral doyul. wallaay dëgg la. ndax fi mu ne barakallahu kon la ñu waxante ba mën a yegsi. la yàlla dolli barke. amiin yaa rabbi jërëjëf Serigne Serif dafa mel ni fa tabarakallahu Haji Idris ñun fi mu toll dañu wedam. la. la la daloon la daloon. أه، نمروز ما دجي ونك ابراهيم بال قران فبوهت كفر ما شاء الله مو ني دال دانيو ودم ندخ تي وقتان وي داغي خامني كيكوي واخ سي خول بي لاي ген موتاخ داي دوجو ديريكتامون سي خولو كيكوي سيتان نون ني توك ديكو دغلو بوك اك موم ايميسيون بي سي سونو خول لاي دوجو بو خولي كاميرامان ني صاح داغي خامني مبير مي سي سين بير خول لاي دوجو دغ لا الحمد لله رب العالمين كيكو من اك كيكوي جيم بونو بن فتبارك الله حاج ادريس يالنا يالا سام تاي بارينا فو غامو اغ نيو تود mënti doon macha allah moo ñu tungoom yóbbu ñu fa amuñu sa pay macha allah du caagéene li ngay suñu mag wala yooyu mhm. waaye amuñu sa pay ndax lislaam mhm. amuñu sa pay ngir dimbalee Ablaye Jëbu Sénikoom yi lépp lu muy def ci daara yi Cees ci mhm. loxoom lay jaar ci lu wér waaye la muy jaarale ci loxoom mu koy def ci daara yi li waral muy yomb ci joxe bi fekk na moom muy génne ci poosam di def ci daara yi avant ko Ablaye ja di jox. bis bu ne nga macha allah koo xamee ne am nga jafe-jafe ci sëriñu daara yi. li may wax waa Thiès yëpp mën nañ ko seede. dëgg la macha allah yal na yàlla fay la. amiin yal na yàlla defal la wér. yal na yàlla yokk sa sutura. ñu lay yóbbante nuyoo ak ziyaar ak sant bu baax ca xalifa ba alxaaji Mouhamadul Moustapha Guèye macha allah comme ñoo ko wax toujours rek. dama ko daan ñun sëñ moo am ak yow affaire. ñun sëñ lañ am affaire moom ñu ñaanal ko yàlla yàlla may ko wér xaaji Moustapha Chérif bismillah waaw jërëjëf xaali Ousmane dellu delluwaat rek di santaat bu baax El Hadj Idrissa di ko wax ni moom kàddoom toujours rek lu ñu wax xitaamuhu miskun la mal misku illa jifatu bi dimaha kenn doyalul kenn doyalul lii daal bu ñu géntoon ñu jël fukki émission yëpp toog rek ci wetam di ko dalal waaye nag yoon yamul ci benn di ñaan yàlla yàlla fiq fanam kilifa la waaye kilifa gu baax waaye kilifa gu oyof waaye kilifa gu am ñeewante ci njabootam bu am ñeewante ci njabootam mm-hmm. am yërmande ci ay rakkam mm-hmm. yëkkati leen nag teg leen ci kaw di leen uuf leen di leen defendre waaye di leen gindi di leen teg ci siraatal mustaqim ñi mm-hmm. kooku nag ku ko yàlla dénk muy sa xéewal muy sa chance da ngay ñaan rek yàlla bàyyi ko mu yàgg fi